ngeen ànd boo leen àndatul toogal mu toog. waaye bul toog ci site internet. di ko yàq di ko yàq di ko waxal yu bon. di ko loolu nit ñi dañu rey ragal. te bu yàggee yow yaa sikk. am na ku ma envoyé benn message léegi. Mhm. ne ma euh, sa digganteeg Marcel Diagne. Mhm. dañu gis ne léegi ñaa xarañ loo moo ëpp lu muy ànd ak moom di ko snap da ngeen am jafe-jafe ba ànd toog moom wala. Marcel la nii lu ma dugal moo koy njëkk xool kooku li mhm. sama papa sama lépp. ok question question gars ñi la quoi gars yi ñooy. envoyé message waaw non Marcel Marcel ñëpp lay àndal. moom il est généreux. Mm-hmm. Marcel ñaa moo ubbi bagage yi ci moom. ok mu ñëw gis ma ak Pape Diouf mu mhm. bëggal ma boppam mhm. ndax man tey ku may bëgg rek mhm. da may bëgg ngir Pape Diouf wala nga bëgg ma ngir Balla Gaye xaritu Pape Diouf la waaw wala bëgg ma ngir Ndoura Balde maanaam ngor ngi ma am ak ñoom ñoom itam seeni nit dañu may làq seen ginnaaw bëggal ma ñii bëgg ma ngir Serigne Saliou Thioune ñii bëgg ma ngir Serigne Modou Kara ñii bëgg moo tax fu ne laa am ay fans moo tax ma wax la ko jamono ji je suis l'homme le plus suivi gëmoo ma su ma génnee ci mbedd bi ak ni ma mel ni billaahi wallaahi du ma mën a dawal deux pas kat nit ñi waruñu ma. gis naa vidéo yi. barke alxuraan. te aussi yaa ngi def social ah. nga nit aussi. Euh, am na loo xam bu ko defee aussi. nga wax ko faw ñu koy waxal. mu ngi def sociale boo xamante ne buggul sax ku koy ku koy wax. te am na yoo xamante ne man maa ngi jot ay message mm-hmm. ñu ngi ma koy wax naan am na loo xam mu ngi koy def te buggul ko ko tudd. Mm-hmm. loolu c'est important dama ci doon yokk rek. waa loolu. Mm-hmm. dafa am solo. tey man gis nga ñi may